yaa may si jaam ça va bien épreuve yi métti na saf na ñoo ngi dee ay xale lañ ay ndaw lañ métti <laughs> saf na de démb ngeen def naka fi la filo bi de maa ngi liir liiraat mais ba tey xaw ma lu sujet bi di wax xaw ma lu muy xaw ma culture générale la xaw ma dafa saf. Hmm, saf na français tamit français ay dictée laa si xamoon mais léegi ay roman yu kenn xamul Habib dafa métti jàng nañ ko de mais dafa saf saf on n'a pas compris. tey si ah def nañ anglais instant bi AG la ñuy def ñoom Mao Zedong ñoom càngaay teg ñoo nga xam ne dee nañ bu yàgg ñu ñu koy kii nii du ñu jàngal ay limaamu laay ay <laughs> ay sëriñ Touba waaye ay Mame Cheikh Ibrahima Fall ñu ñuy jàngal ay Mao Zedong. après des na mat mais mat bi comme comme matu es hmm. mais mat bi comme matu es dafa metti de waaw métti na trop waaw. sujet décolonisation Sénégal Sénégal waa nañu jàngal Sénégal Sénégal waa Algérie du tey la seen indépendance wala waa loolu yëpp suñu yoon nekk si waaye ah yàlla baax na daal yàlla baax na. candidat yi nga xam dañ leen ndax dañoo yor seen téléphone. waa gis naa leen mais kooku nag da leen waroon a baal nag téléphone yi garaawul garaawul de. waa dañ koo fayoon ah mais élèves yi duñ élèves yi dégg moom dañ dëgër bopp téléphone moom si ñun la bokk nag mhm. waaw jàng neuf mois ñu ne la xaaral ba année prochaine non damay bàyyi dem defi jànk jànk ah, kaay kaay kaay ah, téléphone yi nag lañ war a bàyyi seen kër ñu dem affaire yi yàggul 4 kese la ñu dem def suñ paree seen téléphone mu nekk ko utiliser nu mu leen neexee. de rien. seen ëllëg mu ngi tàmbali Kër Mañang Seck votre futur commence à Kër Mañang Seck ak Merco Imo saisir leen opportunité ngeen dund ci cadre yu exceptionnel ay parcelles yu cent cinquante mètres carrés ewa ak titre foncier individuel yow yaay moom lu ci gën a neex mooy c'est à deux pas de la prolongement VDN 3 mujjee et de l'autoroute sortie dis ay avantages yu neex moo leen fay waaye yéen waa Merco Imo lu ñu naar localisation de choix près du Lac Rose infrastructure moderne et aménagement paysager ay yéen li mbaa la ay prix yu attractif de 14 millions ak financement bu flexible waaye yéen lii neex na de sécurité garantie moom lu may xar ba tey ba pare dañu la koy jaay ci kanamu notaire lii mooy nay leer Merco Imo bëggul lëndëm li ci gën a neex mooy dañoo ànd en partenariat ak Batibos réservé leen gaaw léegi-léegi ci 33 860 02 30 33 860 02 30 wala 78 660 84 84 et dama ni seen ay rêve dañu koy réaliser ñun waa Merco Imo ci kër Mañang Seck ku dund ba am kër réussir nga sa life salaamaaleykum mbokk internet yu Dakar Buzz ñu ngi leen di nuyu di leen jaar di am mbégte ak bànneex di ànd ak yéen saa su nekk wante it dama leen daal di félicité tamit ci équipe bu Dakar bés yëpp ci 2 millions d'abonnés yi nga xamante ne si nag daal nañ koy daal di matal di jaajëfal ñëpp ñi nga xamante ne si nag ñu ngi abonné ci suñu page YouTube di Dakar Buzz di la wax aussi tamit ngeen gën a tey nag ginnaaw nag ba nga xamante ne si demoon nañ foofee ca lycée Maurice Delafosse daal di woon jël. élève bi di Adja nekkoon nekkoon candidat ci examen baccalauréat yi ñu jëloon ko nag vidéo bi viral ñëpp rek euh, doon ci àddu ñëpp rek doon xaar li nga xamante ne si nag moo di résultat baccalauréat yi ba tax tey jii nag ñëwaat nañ fii daal di koy jëlaat tout d' abord nag dama koy daal di féliciter ba noppi parce que nag daal ne daal di réussir li nga xamante ne si nag moo di examen yi su ko defee nag ginnaaw bu ñu ko féliciter après dañ koy daal di bàyyi mu daal di nuyoo daal di présenté wu nuyu tamit internautes yu Dakar nuyu Sénégalais parce que nag ñëpp ñoo yàkkamti waatu daal di gisaat nga xamante ne si nag moo di Adja Adja maa ngi leen di fay bu baax a baax di nuyu ku nekk sa ak sa sant euh, te tamit di leen remercier parce que quand gis naa commentaire yi ku nekk naan euh, yal na mooy avant résultat yi ku nekk naan yal na am bac ak mention incha allah yàlla def na li gën am naa bac alhamdulilah di sant yàlla bu baax di gërëm tamit sama waa kër yëpp parce que quand soutenir nañ ma voilà merci beaucoup à tous. voilà mu ngi noonu jaajëfal na ñëpp. dañ koy daal di félicité waat euh, bu baax a baax du ko defee nag dañuy daal di dugg ci waxtaan bi waxtaan ak moom ci période li nga xamante ne si nag moo di baccalauréat yi moom a jaax naka la ko daal di woon dundee. ah stressant woon na trop sax. yii tiitoon naa nag. retaan yi tiit la parce que tiitoon naa torop euh, épreuve yi tamit dafa safoon nag. Mhm. parce que yëpp fuité. Mhm, affaire yi dafa safoon trop. Mhm. mais alhamdulilah. am na. tey bi nga gisee ni nga xamante si nag moo di vidéo bi ñu njëkkoon a jël vidéo bi viral résultat yi génnagul foofu yow ban réaction nga daan am nga gis commentaire yi ñëpp di wax. Hmm, tiitoon naa de parce que may naan imaginel bu ma amul. affaire yi ku nekk di dugal nit yi am na sax ñu doon naan kii moom du am ndax ni ma doon waxee hmm. mais tiitoon naa torop mais daal ba tey alhamdulilah. waa yàlla jàpp na si bu baax. wax sa cursus scolaire Adja ban genre élève la. ah man moom bi ma dalee jàng ba tey macha allah dinaay am ay tableau d'honneur mhm. wala may bokk ci cinq premières yi. cinq premières mhm. sa compo euh, terminal bi ci cinq premières nga bokk. Euh, deuxième bi examen blanc lañ def mhm. ak euh, de base euh, compo mais compo yi bulletin yi considéré ko mhm. mais premier semestre bi am naa tableau d'honneur mhm. moyenne treize merci ñu ñëw si bac bi euh, jël nga sa relevé non jëlaguma ko suba laa koy dem jëli non passable lañ ma defal neuf mois yi comment ça a ah neuf mois yi euh, neuf mois yi dafa gaaw nag si ñun parce que bi ñu bindee jour ji mooy deux cent ak bi ñu bindee jour ji mooy vingt même chose la gaaw na metti woon na mais def nañ ko. ci neuf mois yi lépp hmm. lépp a metti. am na benn message boo xam ne yaa ngi ko doon lancé. loolu tamit attiré na internet yu bëri attiré na ñi nga xamante ne si ñoo di sénégalais yi si système éducatif bi. Mhm. waaw loolu moom dëgg la parce que système bi dañ ko war a changer parce que affaire bi jàng bi dañu war a jàngal euh, Sénégal jàngal ñu suñuy maam ñoom Serigne Babacar Sy euh, ñoom Serigne Touba ñooñu lañu war a jàngal mais dañuy jàngal yoo xamante ni après soo màggee sax doo ko soxla mhm. donc faw ñu changer système bi quand même. lan ngay wax ñi nga xam ne ñoom ñoo la doon jàppale sa parents yi jàpp nañ si bu baax ah dama leen di gërëm bu baax a baax di gërëm sama yaay gërëm sama waa kër yëpp mais di gërëm tamit sama tonton ndax bu du woon moom duma si fii tey depuis bi ma nekkee CI ba léegi mu mu dugal ci ay école privée yu baax lu am mu jàpp si di ma fayal école moom daal awma ma fayam moom maa ngi koy gërëm bu baax a baax. après résultat yi émission bi la moo nekk projet bi da nga pare pour dem continuer say études Sénégal wala dem extérieur xaar orientation dem U4 wala genre. noo man étude extérieure laa bëgg a def nag. <laughs> fan nga bëgg a def. ah ça dépend soit France wala Canada ça dépend. lan nga bugg a suivre. finance. pourquoi nga bëgg domaine finance. Euh, parce que te andi ay avantages yu bëri te liggéey yi fa nekk yëpp ça rapporte beaucoup d'argent ngay wax yenn candidats yi nga xam ne ñoom dañ leen a ajourné ak ñi nga xam ne ñooy def deuxième tour ah ñu ñu ajourné euh, ñu ñu leen di ñaanal yàlla mu may leen xolu muñ ñi nga xamante ni second tour bu ñu découragé nañ jàpp euh, gën a góorlu incha allah dina baax mm-hmm. Mm-hmm. part ça si si ba tey si internet seen commentaire Adja su beauté bi la ñuy waxtaane est-ce que <laughs> ah merci allahuma barik bu leen fàtte di wax allahuma barik macha mhm. allah. aussi ki nga xam ne moo di prof immature mhm. moom tamit def na benn poste si yow di la ñaanal avant avant résultat yi doon ñëpp doon ñaan après résultat yi aussi ñu gis mu félicité la ndax gis nga mhm. message. waaye yooyu yëpp gis naa ko di leen wax merci. merci beaucoup yéen ñëpp ñi nga xamante ni yéen ak ma doon ñaanal mm-hmm. franchement merci. Mm-hmm. ah di leen nuyu yéen ñëpp mm-hmm. di leen euh, di leen wax ni que ni kontaan naa torop kontaan naa torop torop torop. ñoom <laughs> tam maa leen di nuyu. Maodo Maodo. Maodo ñu bëri sax dañ may woowee Maodo. ah. sa yaay naka la gisee kii bi mu tudd sax euh, video yi naka la ko gisee bu xëyee rek gis na si écran yi ñëpp di ah, moom dafa xëy rek ñu commencé di ko yónnee vidéo yi mais ah dara. non am na yoo xamante ne commentaire yoo xamante ne dangay dañ koy xool sax di reetaan mooy ñi naan kii bu amul bag dina am jëkkër <laughs> yooyu noonu yëpp dañ koy xool di reetaan mais daal dara. à part ñi doon wax kii boo moytulee du am bac ak yooyu noonu. Mhm. non ça va. demoon naa ci école bi doon la xoolaat foofu mais gisuma la ñëpp parce que dama doon demaatal demaatal léegi ma demee foofu nag xool naa la gisuma la ñëpp doo ma laaj ani Adja ani Adja léegi nag yaa ngi nii ma bëgg nga wax ma tey yow message bi message nga jot naka nga kiiwee résultat message nga jot wala noo def ba nga gis. dama ko gis rek yuuxu. man ak sama yaay ñu ñëpp di yuuxu hmm. yii affaire bi moom yuuxu laa def na dama dama njëkk xalaat video bi hmm, moom laa njëkk xalaat mu ni alhamdulilah hmm. ndax bu demee woon neneen moom dangaa dégg teng rek nga bi message bi nga déggee teng rek dangaa dégg teng rek nga ubbi dama ñëw rek ubbi man euh, office du bag yónnee ma ko sama tonton la ko yónnee ah. mu yónnee ma ko mais dama ko gis rek yuuxu commencé di woote. woote. <laughs> woo naa ñëpp. Hmm. Mhm. en bu baax a baax. merci kontaan nañ si trop. Mhm. ñaanal yàlla na doon sa njiglaay yeneen yeneen topp si. voilà nee nga da mhm. hmm. ah, jàppale bu baax. waaw. jox na la cadeau. waaw. Ah, waaw secret la. <laughs> suñu 2 millions d'abonnés yi nga xam ne am nañ ko récemment. Ah, encore une fois merci beaucoup à tout le monde. vous étiez trop gentil à me souhaiter bac et cetera mm-hmm. ak aussi ñu mayoon naan da ngaa merci. <laughs> nii lay sa numéro nag. Hmm. xale nga da waaw damay jàng xale voilà mbokki internet yu Dakar Buzz indilaat nañ leen Adja wante nag daal nañ ko fekk fii si këram fekk fi nga xamante ne si nag mooy di waajuram bu jigéen moom nag dinañ daal di waxtaan ak moom mu xamal ñu kan mooy Adja maman ngi lay maa ngi lay fay. maa ngi si jàmm waa. tur bi mhm. a wax si sa doom. gannaaw bu ma sante yàlla. Mhm. julli si yonente bi sallallahu alayhi wa salaam. Mhm. sant sama wasila sëñ Babacar si. sant sama ñaari waajur Adja xale bu masa noppi la dal masul bëri ki bi mu nekkee xale moom doojoon na ay wax waa di wax ay wax ñuy ree affaire yooyu mais nu mu màggee nii moom toog bu jàngiwulee mu ngi si am du sax seetaan moom jàng rek jàngi tëddi jàngi tëddi loolu daal laa ko lañ lañ ay dugg dugg bëriwul kanjuma dëkk nii xamu fa kenn du génn jàngi bu wàccee mu ngi si bu jàngee ba pare mu ngi si portable loolu daal moom laa ko xamee moom. te bi ngeen yëkkatee bi ngeen gisee résultat baccalauréat yi ban réaction ngeen am nag nga ko dundee en tant que ñun kay bi ñu fan yëpp nelawuñu dañu stressé hmm. ndax man ba ma yeewoo ba gis kii man bu mu ñëwee premier jour mar mercredi hmm. ñëwal ma vidéo bi si portable am man pour man affaire bi foofu rek la yem hmm. mais bi ma yeewoo sama xarit sama jëkkëru mag bi ku ne di ma ko envoyé. Mhm. si laa tiit nag ma ne ko Adja waroo woon wax de mënu woon bàyyi ñu jël keneen si élèves yi foofu noonu. Mhm. mu ne maa lii dara newu ci. Mhm. mais bi ñu jotee message bi sama mag bi xam nga man sama mag bu ma bokkoon ndeyax baay. moom moo ko jël moom moo ko yore moo koy fayal mu jàng depuis ba mu nekkee CI. la ko dugal Extra muy jàng. ba nu mu nekkee Sacré Cœur man mosuma jënd bic mosuma jënd livre mosuma jënd kaye. lépp moom la jibindooy lépp Adja tey bu jàngee ba naan am na bac. grâce à sama mag boobu la. léppam moom la. man mosuma jënd dara du e-, ma fay xam sa école ñaata la fay. tenue sax moo koy jënd. moo tax maa ngi koy sant di ko gërëm sama mag boobu jibi jibi jibi ndooy la tudd. maa ngi koy ñaanal yàlla bu baax fi mu bëgg a yegg yàlla ko fi yàlla yeggale. si barke sëñ Babacar yàlla bu mu jaaxle. moom ban la nekkoon mm, moom série L mm-hmm. mu daal di am moom mooy sa taaw. mooy sama taaw waaw. yan jaar-jaar ngeen di am yaag moom yoo xamante ne si daf lay touché. parce que dañu bu mu amee ay euh, trois ans. Mhm. la divorcé ak papam mhm. ma yor ko max moom ñu dëkk ak sama yaay. Mhm. waaw mais amuñu benn ma am problème ndax sama mag boobu. mosuma am benn problème. ndax sama boobu depuis bu mu nekkee jardin ba nu mu duggee Estramar ba Sacré Cœur moom moo ko yore. ba ni muy defee bag nii. chauffeur am la ko envoyé. 6 heures du matin day ñëw jël si ko. yóbbu ko dalaa fas. 5 heures 30 mu indiwaat ko. ba 4 jours yi mat sëkk. man daa Adja aw ma si benn coono. aw ma si benn coono ndax moom moo yoroon léppam léppam ba tey jii nii léppam moo ko yore. moom nijaayam boobu bi gisee vidéo yi nan la def. kontaan moom mooy njëkk a sax oo oh, envoyé ñu message. oo oh, ma di ma remercier man mu ne man man lépp man la ma ne ko déedéet lépp yow la. ma ne ko Adja bu jàngee tey bañ na bañ naan Adja am na bac grâce à yow mhm. waaw. sant naa ko gërëm naa ko sama xol sedd na si moom trop waaw. tey gis ampleur bi nga xam ne vidéo bi nga ko jëloon def na ko ñëpp di ko waxtaanee commentaire yi et tout ça ñëpp tamit doon xaar Adja daal di am bac parce que nag commentaire mën nañ sax lu ci ëpp positif la parce que ñëpp dañ ko doon ñaanal bi nga gisee loolu tey yow noo def. kontaan parce que ñoom xamuñu ko sax. Mhm. te ñu ngi koy ñaanal. ñi ko boo xoolee ñi ko doon kii ñëpp xamuñu ko sax te ñu ngi ko doon ñaanal moo tax ñooñu aw ma seen fay maa ngi leen di sant di leen gërëm mhm. kontaan naa si ñoom trop ñaani agsi na waaw. tey lan mooy nekk lan ngay xaar ci ci Adja tey ji ak avenir am ak ah. moom extérieur la bëgg a dem de mbaa yàlla baax na yàlla si yàlla teg loxoom rek comme si yàlla yàlla moo si jàppoon boobu ba tey. Mm-hmm. yàlla si yàlla continuer di jàpp rek yàlla def li gën si moom. Mm-hmm. Mm-hmm. di gërëm ñëpp di leen gërëm yéen tamit. ndax euh, ba ngeen ko jëlee ba tey monde bi yëpp Adja kenn xamu ko woon. mais ah seen vidéo bi si lëkk ko ñëpp xam. macha allah ba pare ñii internet bi dañ ko doon waxal lu baax lañ ko doon waxal ñii nakaan da nga rafet ñii di ko ñaanal ndeysaan yàlla na am bag moo tax kontaan naa si trop kontaan naa si nit ñi maa leen gërëm bu baax di leen sant. tànk yaay gars yaa ngi woon numéro yàlla baax na. waa <laughs> jàng ah. waaw day baax na waaw. waaw maa ngi gërëm tam sama jëkkër. Mm-hmm. Demba Koné. Mm-hmm. moom tamit dafa jàppale Adja. bu baax sax su ajaa toogee sax kii da ajaa lan la kii bi bag bi baar moo la kii bul stressé yow da ngay am parce que yow jàng rek laa la xamee chaque fois loolu la koy wax téye na ko bu baax comme doomam vraiment maa ngi koy gërëm bu baax waaw yam ajaa ak doomam bu mu am man ñoom ñaar benn la si moom waaw. ajaa léegi Insta réseaux sociaux yi xam nañ ko lan nga koy conseillé. ah mu kii rek mu xam fi mu teg tànkam rek moom moom jaaxalu ma wax dëgg yàlla du xale bu ñuy wëri sonalu ma daal si dara moom wax dëgg yàlla. waaw fu mu yem nii laa la yem nu mu mel nii la mel waxam ba mu waxee ba pare noonu ñëpp doon naan Adja kon mën na wax. Mm-hmm. Mm-hmm. ñëpp loolu lañ doon wax kenn xam mu woon ne sax dina wax. ndax moom dafa sax xorom ba pare mais dafa lancé waale benn message bu am solo mm-hmm. loolu moo gën a bàyyi loo xel nit ñi ci vidéo mu dëgg la waaw loolu moom dëgg la moom mais sant yàlla rek li yëpp yàlla la. yàlla moo noonu buy def bag ñëpp nañ ko xam. jërëjëf ak ah, voilà ginnaaw bi ñu waxtaanee ak yaayam ñu ngi ni toog nga xam ne nag tante la si Adja ñu bàyyi ko moom tamit mu daal ci sànni kàddu maa ngi fii ça va alhamdulilah man Aminata Ndoye laa tudd mhm. euh, bag bi daal ñëw dugg seen biir ci sa doom naka ngeen ko dundee sant yàlla rek sant yàlla bu baax a baax a baax dool dooleeti di sant ndax moom mi da doon def mais man aussi dama am doom bu maase moom sax te ñoom ñaar ñëpp ñoo am. ñoom ñaar ñëpp ñoo am. merci beaucoup. Mhm. amiin bi ngeen gisee vidéo yeeg yooyu noonu tey bala moo nekk seen réaction tiitoo woon leen comme li yaayam wax rek mhm. ñun li ñu jaaxal rek mooy Adja ndekete dina wax. Ah. parce que ñun ñii ñëpp si kër gi Adja du wax de. Mhm. bariwul wax bu bari. donc bi mu nekk sama frère. bu ma bokkal ndey baay aussi man moment boobu dafa fekkoon ma amoon euh, liggéey mm-hmm. parce que ñun ay traiteur lañ dañoo demoon benn dëkk bu ñu wax ñooro mm-hmm. nooto mm-hmm. ma wan ko vidéo bi mu ne ma man di gis naa ko mais je me demandais kii est-ce que Adja la ma ne ko Adja la ne moom gëmu ko woon <laughs> <laughs> donc looloo jaaxal ñëpp daal kon daal moom dafa timide bi ngeen gisee vidéo bi dafa timide Adja wax wax bëri fii des fois dañuy toogandoo ñun ñëpp comme ni mu def nii rek lay def mhm. mais sëgg si téléphone am mhm. macha allah macha allah aussi balaa muy nekk si téléphone am dina jàng ba pare. Mhm. waaw yem na fiñ ñu ko yemloo. koñ bi fii kenn xamu ko ay taxawaalu. demul dikkul. bañ na ko ba bu ñuy génn sax ñun di dem ay sorti wala fenn. ñun ñëpp ñooy ànd ak suñuy doom ñu nanguñu sax bàyyi suñu doom yi ñu demal seen bopp géej wala fenn loolu moom yàlla may nañu ko ci famille bi. ni mu waxee tamit gis ñu ci benn manque de respect ak wax ju teguwul ci yoon wax na nit ñëpp kontaan nañ ree nañ mais aussi lancé waale na message mel ni ku ñu yar la. ñu yar la ndax boo seetee yar bi ci suñu papa ji la jëkkee ndax moom mii moo ñu yar teg ñu ci yoon mm-hmm. ñun xamuñu dem mm-hmm. xam ñu ñëw sama papa ji bëggul sax ñuy ñuy dem fenn. Mm-hmm. depuis xale. Mm-hmm. su la gisee nga dem fenn dinaa na lan la da nga xiif wala da nga man mm-hmm. sama papa moo ñu yaree noonu ñun ñëpp noonu la ñu mel. macha allah. man sax xuloo naa si nag de. xuloo naa si commentaire yi. Ah man maa gën a fiir yaayam. Ah. voilà parce que dama gis ko dugal turam. <laughs> ma ne ko yow tamit soxna si mënoon ngaa bañ a dugal turam te wax rek. xale bi daa di ma dépassé ma ne amul benn problème man mag laa du ma wax mais man tantam laa moo tax ma lay wax boo may lancé waat message di wax euh, comme par exemple xale boobu li ko dal ñu bëri ñu koy moytu parce que waroo gis benn affaire rek nit commentaire yow nga osé waxtu jàmbur parce que doo xam peut-être kooku nu mu koy gisee wala nu mu koy jalee xam nga mm-hmm. loolu nit daf ko war a moytu ak joxe numéro téléphone jàmbur mm-hmm. voilà voilà di gërëm rek comme ni mu ko waxee suñu mag ju góor jooju. Mm-hmm. yàlla daf ko def mooy suñu taaw bu góor seetaanuñu benn yoon ñun ñu dara namuñu dara ndax moom. Mm-hmm. xoolu ndax am nga jëkkër xoolu ndax yaa ngi liggéey xoolu dara di ko ñaanal rek yàlla defal ko jàmm. Mm-hmm. defal ko gudd fan. yàlla may ko mu dund dund dund bañ koy weer a ko weri ñu toog ba ajaa Diop mii di ko muur kaala màkk ak ay doomam moom xoolu dara daal jàppale na ay sëram ñun daal jooy ñu càmmiñ mhm. maa ngi leen di remercier yéen tamit di kontaan si seen euh, ni ngeen déplacé wu ñëw ba fii di leen wax ne aussi kontaan nañ si li ngeen defal Adja waa di lancé benn message rek di wax ne euh, comme par exemple euh, Adja comme ñu mel ni moom bëgg a génn dem jàngi ñu jàppale leen si affaire yi muy yomba daal parce que waajur yi tamit dañuy fayal seen doomi ñu jàng ba ak si fii des fois pour ñu am pré inscription wala yooyu noonu day doon problème donc ñuy jàppale xale yi voilà si bourse yi ñu mën a jàngiwaat eggali seen jàng loolu daal mooy sama dernier mot. bi xam nañ ko. foo tourné ci réseaux sociaux yi moom peut-être que a am a gis mais nit ñi ñu ngi koy gis. Mhm. moom lan nga koy conseillé ndax réseaux sociaux nekk na milieu bu doy waar am na ay avantages comme li ma wax rek nee naa ko réseaux sociaux am na avantage comme am na ay inconvénients. Mhm. nga moytu lu bëri parce que ñu bëri ñu ngi nekk comme ni nga ko waxee di recherche numéro mhm. te comme beneen xale bi ni mu osé bind turam peut-être am na keneen koo xamante ne peut-être buñ ko laajee numéro mu joxe ko. mais lii dalal sama xel rek mooy moom sama xel dal na si moom parce que demul te tàggoowul du dem fuñ ko fuñ ko santul vraiment loolu daal sama xel dal ma koy ñaaxaat rek di ko wax ni ko bës bu mu tax aussi nga dugg si dara loo xamante ni du loolu comme ni nga defe woon sa yaay allié continuer ko nga def ko sa yaay di waxtaan ak sa yaay ba ñënd boobu moom dara bu la nit nee bu la wooyee téléphone sax nga ne yaay diw de woo na ma comme ni nga ko daan defee man loolu tiituma si sax parce que xam naa ne noonu la koy doxalee mm-hmm. voilà. Mm-hmm. merci beaucoup merci merci à vous aussi. Adja gars yi ne da nga timide. ah loolu moom dëgg la damaa noppi. c'est juste que bu mu nekkee ak sama xarit yi yenn saa yi nii da ngay a tuuti. Mm-hmm. mais damaa noppi de. donc loolu moo la poussé parce que man bi ma ñëwee foofu bi ma la jëlee ah ñëpp yoo leen doon naa la ñoom peut-être sax parfois ñoo doon passé mots yi ngay wax. mais ni <laughs> ah noonu laa mel de école. noonu laa mel damay wax rek. mais yenn saay moom damay xaw a noppi tuuti. Mhm. <laughs> léegi daanaka ñépp xam nañ la ci réseaux sociaux yi am nga compte TikTok. am naa compte TikTok mais duma publier. waaw mais gis naa kenn mu créer benn faux compte. Mhm. di il se fait passer pour moi xamu góor xamu jigéen la mais mhm. daal la personne se fait passer pour moi mais du man. du yow. am nga sa compte mais doo publier compte. Mm-hmm. nu tudd sax Instagram. Mm-hmm. Facebook non non sax aw ma ko. Mm-hmm. mais loo leen gis daal ñu publier daal du man. lan nga ñi nga xam ne ñoo utiliser sa nom di ko nii ko yow la. ah loolu moom dañ ko war a arrêté parce que c'est malsain parce que mën nañ tamit publier benn affaire boo xamante ne ñu koo publier ñu foog ni que ni mal la mais heureusement. Euh, suñ gisee compte yi man sama mbokki dañ ma koy yónnee ne mën a yow la wala du yow ma ne leen déedéet du man comme ça après ñu dem commentaire que ni du man nit yi xam na ni que ni du man. instant yi nekk ci réseau sociaux yi tey ban taxawaay nga fas yéene am parce que am na ay lu positif mais aussi am na lu négatif. ah mel comme ni ma meloon rek parce que affaire yi. léegi mu jàll. lii nii euh, c'est juste temporaire mais léegi mu jàll. Adja ah, <laughs> fas yéene yaru rek. waaw mm-hmm. mm-hmm. ku am bag bu daa après après après la ñuy réew. après la ñuy réew. vacances bu baax. Mm-hmm. vacances yi ah, ñu arrosé ba pare. ah xamaguñu sama sama jumeau bi la ñuy xaar parce que moom tamit daa am bag mhm. ma ngi koy wax tamit félicitation. Mhm. Ah, bu ñëwee incha allah si la ñuy arrosé. daal du yomb de. du yomb bu naree yomb ñu bàyyi ko. waaw <laughs> ah. fay allah incha allah. de rien. voilà mbokk internet yu Dakar yaakaar naa yéen a doon laaj ñu indilaat leen Adja indilaat nañ leen ko mu ngi noonu ginnaaw résultat baccalauréat yi moom nag euh, mu daal di réussir li nga xamante ne si nag moo di examen yi ñu ngi koy félicité bu baax a baax ñi nga xamante ne si nag ñoo di ay waajuram parce que nag tey bu egsee fii nii ñoom ñoo ko jàppale ñoo ko jox éducation bu baax ba tey moom mu daal di mën a egsi fii ñu ngi koy félicité ses parents yi bu baax a baax di jaajëfal tamit ñi nga xamante ne si ñoo di suñu ay internautes ak ñi nga xamante ne si tamit ñoo daal di abonné ci suñu page YouTube di Dakar Buzz ba tey ñu daal di mën a atteindre 2 millions d' abonnés yi di wax aussi tamit ngeen di gën di woy di abonné suñu ay plateforme digitale ñu leen di jox dig daje beneen yoon incha allah. seen ëllëg mu ngi tàmbali Kër Mañang Seck votre futur commence à Kër Mañang Seck ak Merco Imo saisir leen opportunité ngeen dund ci cadre yu exceptionnel ay parcelles yu cent cinquante mètres carrés ewa ak titre foncier individuel yow yaay moom lu ci gën a neex mooy c'est à deux pas de la prolongement VDN 3 mujjee et de l'autoroute sortie dis ay avantages yu neex moo leen fay waaye yéen waa Merco Imo lu ñu naar localisation de choix près du Lac Rose infrastructure moderne et aménagement paysager ay yéen li mbaa jàmm la ay prix yu attractif de quatorze millions ak financement bu flexible waaye yéen lii neex na de sécurité garanti moo lu may xar ba tey ba pare dañu la koy jaay ci kanamu notaire lii mooy nay leer Merco Imo bëggul lëndëm li ci gën a neex mooy dañoo ànd en partenariat ak Batibos